asalaamaaleykum dal leen ak jàmm wàllu njàng meeg njàngale mi pàcc bu amoon solo la démb ci conseil des ministres ndax soxal na lool président Bassirou Diomaye Faye lu am solo la ci projet bi nga xam ne moom la ñu fas yéene jëfee ngir askan wi ëttu bu groupe Sud Communication di Sud Quotidien yi taxawaay bu bees bi jëmale ci njàng meeg njàngale mi nag dafa aju ci xarkanam bu yees ci njàng mi mu sukkandiku bu baax a baax suñuy mbaax ak mu méngoog li nga xam ne moom la ñuy dund suñu réew loo xam ne it soxal na président Bassirou Diomaye Faye mooy it bu ñuy indi xar kanam bu yeesu ñàng meeg ñàngale mi nañ ci bàyyi xel bu baax a baax làkk yi nga xam ne moom la ñuy làkk ci ñu réew teg ci làkku anglais bi ñu door ko ci école yu suufee yi moo gën a fës ci mébét bi nga xam ne moom la président de la république ne démb ci conseil des ministres ci la ñuy des ndax it soxal na le soleil bu baax a baax muy xam xamle nii leneen loo xam ne it soxal na jëmale wàllu njàng meeg njàngale mi njiitu réew mi mooy ñu tabaxaat programme paquet ngir njàng mi mucc ayib ñu fexe ba wàllu xarala yu yees yi ñu boole ko bu baax a baax ci njàng meeg njàngale mi anam yi nga xam ne nag ci la ñuy recruter jàngalekat yi it soxal na njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye bi nga xam ne dafa dur suwaat bu baax a baax teg ci nag indi ay coppite ci doxalinu njàng meeg njàngale mi si suñu réew waxtaane na bu ñu sukkandikoo ci waa réew mi quotidien ci abri provisoire yi maanaam bërëb yi nga xam ne ci la ñuy jàngalee te fekk du yu gën bëgg na it ñu saytuwaat bu baax a baax li nga xam ne moom la ñuy jàngal xale yi école privée it soxal na ko bu baax a baax ak ci taxawaayu daara yi ci suñu réew leneen président ba Bassirou Diomaye Faye mu xamle ko démb ci conseil des ministres bu ñu sukkandikoo ci 24 heures nag moo jëm ci wàllu tàggat yaram ndax soññ na ministre bi nga xam ne moom lañ dénk wàllu wii mu fexe nag ñeent fukki at ginnaaw bi nga xam ne ci la ñu wote woon loi bi nga xam ne moo tënk charte yi lalu ci wàllu tàggat yaram ñu saytu ko bu baax a baax mi ngi soññ jëw jëwriñ bi mu indi ay coppite yi war ci wàllu nawetaan yi dañuy des ci conseil des ministres bi ndax ëttu yéene kaay ñu xëyandool bu ci mel ni laas mi ngi xam ne ne nag indi nañ ay coppite yu bëri ci bopp direction yi yi maanaam seppi ñi nga xam ne ñoo fare woon ci régime bi ñu weesoo mi ngi wéy ba tey Yaay Fatou Diagne Pape Demba bi tey aadama Diallo ak Baara Ndiaye Bassirou Diomaye Faye tekki na seen i ndomba tànk Pape Demba bi tey bi nga xam ne nag secrétaire général am bi di Papa Toby Gaye moo ko wuutu Amsatou Sow Sidibé ak Fatou Ndiaye Blondin ginnaaw jàppale bi ñu jàppale régime bu bees bi neexal nañ leen bu baax a baax Rougui Sow Justin Korea Alioune Gueye Matar Sène Jean Michel ak Ndame Sène fare ci parti Pastef ñoom it tudd nañ seen tur démb ci conseil des ministres bu ñu sukkandikoo ci Sud Quotidien Ousmane Sonko di premier ministre waxtaan it li nga xam ne moom la ñuy xaar fi mu toll nii muy déclaration de politique politique générale ñu ngi ci wàccaay bi bu baax a baax mu joxe dig daje fileek ayu bés yu ñu jëm ñu des ci assemblée nationale ndax jàpp leen ni ab bomb la député bii nga xam ne dafa fare ci Pastef di Guy Marius Sagna yéegee waa laas commission bi nga xam ne moom la ñu teg ngir mu saytu liggéey bi nga xam ne moo am ci tefesu Ndakaaru nag daje na dajeem bu njëkk waaye nag li ko ci gën a métti mooy ñàkk teewaayu assemblée nationale muy xam xamle nii lay yi nga xam ne ki jiite assemblée nationale di Amadou Mame Diop yëkkati na ko ngir wax lu tax teewuñu gëmu ko mu koy nakarlu bu baax a baax. ñu jàll nag ci wàllu lempo bi nga xam ne xoj na fi mu toll nii ay entreprise de presse yu takkoo takku moo tax taxit ñu faree ci CEDEPS démb lalu nañ ci seen biir li tax a jug bi leen daje mooy fexe ba xoj bi nga xam ne moom la leen lempo bi xoj ñu yolomal ko ñu sukkandikoo ci laas waa CEDEPS li leen soxal mooy presse yi nga xam ne dañ ko bloqué nguur gi del ci gannaaw bu baax a baax impôt yooyu nag dafa mel ne yomb la fay bu ñu sukkandikoo ci bës bi le jour ñu bëri dañoo jàpp ne presse bi li ñu teg ci seen ndodd mooy fay l'impôt du seen mënin CDEPS bi nga xam ne moom du Ibra Kane moo ko jiite nag nee na pare na temm ngir dajeek njiitu réew mi ngir ñu yembal mbir yi CDEPS li ko soxal muy indi ay coppité ci wàllu lempo yi ci entreprise de presse yi bu ñu sukkandikoo ci la le quotidien ak ñoom la ñuy desal rawatina koppar bi nga xam ne moom la ñuy leb ci biti réew ñu dubbee ko ay bon te mu toll ci ñeenti téeméer ak juróom fukk milliards ci kopparu CFA le quotidien ginnaaw gi ma xam la ne ñu bëree ngi rafetlu loolu la nag dellusi na ñi nga xam ne mooy ñuul ci soow mi rawatina taux d'intérêt bi nga xam ne nag toll na ci luy jege juróom-ñett poñ ci téeméer boo jël te lalu ci juróom-ñaari muy fàttali nit ci atum 2021 nag sunu réew leboon na juróom téeméeri milliards waaye nag war ko fay ci diirub fukki at ak juróom benn le quotidien di fàttali ne koppar bu tax ko bi nga xam ne moom lañ leb biti réew benn wàll bi yem nag dañ koy jagleel fay ñuy bor ci wàllu yoon wàllaas ak yeneen ëttu yéenekaay ñooy xëyee xëyandool nag ñu ngi waxtaane mbirub aadama Faye goro la ci président ba woon Macky Sall mi ngi ci loxo yi yoon li ko fa yóbbee nag mooy dañ ko tudd ci wàllu nju njaaj waa section de recherche dañ ko déglu ba noppi ñu des si wàll yoon jàll ci ñi nga xam ne nag ñoo faree ci dikk ndax ñoom tey jilee bu 11h jotee danañu déglu Cheikh Bara Ndiaye la ko yóbbu si seen kanam nag mooy plent bi nga xam ne moom la Thérèse Faye nekkoon fi ab riñ nekk yi jaraafu jareer teg ci ndoddam moom animateur bi ci Walfadjri Thérèse Faye li mu koy xarabee mooy dafa xamle ni alal bi nga xam ne moom la am amin ba taxu koo sell ba tey ci wàllu yoon jàpp leen ni Alassane Fall bu Pastef dana jàkkaarloo jàkkaarloowaat procureur liñ koy toppee nag mu yëkkati ay kàddu yu teg tegginuwul teg ko ci ndodd ab magistrat jongante bi war a am ngoon bu juróom-ñaari waxtu jotee ci stade Maître Abdoulaye Wade ci diggante Sénégal ak RD Congo soxal na it ëttu yéenekaay ñu xëyee ndool bu ci mel ni stade muy xamle ne nag benn sas lañ teg gaynde yi mooy am ñetti poñ moom la gaynde yi war reere tey jile bu ñu sukkandikoo ci waa laas RDC bi war a jàkkaarloog waa Sénégal balaa seen jàkkaarloog waa Mauritanie bu ñu sukkandikoo ci Le Soleil loolu yëpp jëm ci ñetteelu bésub éliminatoire coupe du monde waatum du mille vingt atum 2026 ginnaaw ñàkk teewaayu général Sadio ci boobu la jongante nag liyeen naam bi di Iso Sarr moom la ñëpp teg yaakaar kii tàggat gaynde yi nag di Aliou Cissé mi ngi xam le nag ngir mun a bokk ci coupe du monde bi faw ñu dóor RD Congo file suñu biir dëkk waa SAD la ñuy desal ndax ñu ngi waxtaane it Coupe d'Afrique des Nations bu atum 2025 xam xamle ne nag dañu ko toxal waa CAF miy toppatoo mbir mi dañu ko taxal ba ndorteelu atum 2026 li ko waral nag muy coupe du monde des bi nga xam ne moom la ñu war a amal ci États-Unis li ko dalee fukki fan ak juróom su weeru juin jàpp fukki fan ak ñett ci weeru sulet ci atum 2025 lii moo gënoon a fës ci ëttu yéenekaay yi ñu xëyee ndool ñu yendoog jàmm Bonjour. Une politique éducative basée sur le renouveau et le repositionnement stratégique de l'école dans les valeurs et ambitions de notre société avec des enseignements adaptés aux réalités nationales et prenant en compte les langues nationales ainsi que l'introduction de l'anglais dans le cycle élémentaire, c'est entre autres la volonté exprimée du président de la République Bassirou Diomaye Faye pour un projet de transformation systémique du Sénégal. Diomaye livre tout simplement une clé du projet d'après le confrère. Le chef de l'État à relevé la place de l'école dans le projet de transformation systémique du Sénégal. Et le Soleil se propose de nous livrer les axes de la nouvelle école prônée par le président Bassirou Diomaye Faye, avec notamment la restructuration du programme paquet, la prise en compte des langues nationales, la généralisation de l'enseignement de l'anglais dès l'élémentaire. Le confrère n'oublie pas également le développement du numérique à l'école et la digitalisation intégrale du système éducatif, sans oublier la planification prévisions sur 5 ans des recrutements d'enseignants dans toutes les matières et l'éradication des abris provisoires, ce qui pousse Réumi Quotidien à dire que Bassirou Diomaye Faye et corrige le système éducatif et passe au peigne fin les programmes scolaires, les écoles privées et l'intégration des Dara. Bassirou Diomaye joue le match des sports selon 24 heures Il a indiqué la nécessité de redéfinir le cadre juridique global des sports au Sénégal et à invité le ministère en charge des sports à évaluer 40 ans après son entrée en vigueur, la loi du 23 mars 1984 portant charte du sport. Il a également invité le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture à rénover de fonctionnement et des activités de vacances, comprenez les en cohérence avec la politique de promotion d'une citoyenneté active et constructive. Restons avec le Conseil des ministres avec cette fois-ci les défenestrations de responsables de l'ancien régime. La purge continue, informe l'AS. Yaï Fatou Diagne, Pape Dembobitei, Adam Diallo, Barangay ont été sabrés par Diomaye, alors que Sambou Biagi remplace Barangay qui n'a pas été sauvé par son adhésion à PASTEF. Toujours d'après le confrère, Pape Dembobitei a été remplacé par son générale Amsatou Sow Sidibé et Fatou Ndiaye Blondin sont récompensés. Les confrères de relever la part du lion de Pastef avec les nominations entre autres de Rougui Justin Correa, Alioune Gueye, Jean-Michel Ndamessen. Retenez avec la presse parue ce jour, notamment Sud Quotidien, que la déclaration de politique générale tant attendue du Premier ministre Ousmane Sonko se fera bientôt. S'exprimant hier mercredi en réunion du Conseil des ministres, Ousmane Sonko a fait part des préparatifs de cet exercice devant l'Assemblée nationale, exercice prévu au cours des prochaines semaines. Restons avec l'Assemblée nationale car c'est une bombe que le député et activiste de PASTEF l'AS que la commission ad hoc en charge des chantiers du littoral s'est réunie pour la première fois. Toutefois, il a dénoncé l'absence de l'Assemblée. Il accuse le président de l'Assemblée nationale, Amadou Diop, d'avoir évoqué un prétexte fallacieux pour que l'institution ne soit pas représentée dans la commission ad hoc. Place à présent à la pression du fisc avec l'AS, qui renseigne que le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal s'est réuni hier pour se le fisc et le blocage des comptes bancaires presse. Au terme de la rencontre, les acteurs ont plaidé pour une main levée sur ces comptes. Et selon le président de la structure, Mamoudou Ibrakan, des entreprises de presse, sinon la quasi-totalité, ont reçu des notifications du service des impôts. Il est d'avis que la procédure est en mode fast-track et appelle les nouvelles autorités à plus de compréhension. La presse se concerte pour desserrer les taux d'après. las impossible de payer avec le fisc aux trousses des entreprises de presse, indique Busby le jour. Cette presse taxée de non-payeurs, le SNEPS e dirigé par Mamoudou Ibrakan est prête à rencontrer le chef de l'État. Le SNEPS e veut tout simplement des réformes relativement au redressement fiscal des entreprises renseigne le quotidien. Restons avec le confrère qui s'intéresse aux eurobonds de 450 milliards de francs CFA, notamment les failles d'une opération. Le taux d'intérêt est de 7,75% pour 7 ans, alors qu'en 2021, le Sénégal avait emprunté 500 milliards de francs CFA à 5,3% pour 16 ans. Le quotidien de signaler qu'une partie de l'emprunt va servir à payer l'encours de la dette. Escroquerie foncière présumée, Adam Faye, le frère de Mariem Faisal, l'épouse de l'ancien président de la République Macky Sall, est en garde à vue. Il a été auditionné hier par des pandores de la section de recherche. Restons dans les couloirs de la justice avec l'AS, qui renseigne que l'ancienne ministre et maire de Diarère, Thérèse Fay, a porté plainte contre Cher Barendjaï. L'animateur à Walfadjiri est convoqué à la division des investigations criminelles aujourd'hui à 11h. Il avait accusé Thérèse Fay de s'être enrichi dans des conditions douteuses au moment où Alsan Fall du parti PASTEF bénéficie d'un deuxième retour de parquet. Il a été interpellé pour outrage à magistrat. Sénégal RD Congo à 19h, cette rencontre intéresse la presse parue ce jour. Les trois points et rien d'autre indique Stade le quotidien du sport. qui renseigne qu'en l'absence du général Sayo, qu'il y a le lieutenant Isosar pour porter les Lions et de revenir sur le face-à-face Sénégal-RDC, car avec 11 matchs, aucune défaite des Lions n'a été enregistrée depuis 55 ans. Face aux léopards, les lions sont entre rachat et leadership à conforter, d'après Bosbu le jour. Les léopards sont en ligne de mire avant la Mauritanie, selon le soleil. Alors que pour Sud Quotidien, les lions font face au défi des léopards. Et la presse paru ce jour de donner la parole au sélectionneur national Aliou Cissé. Il déclare Pour se qualifier à la Coupe du Monde, il faut battre la RD Congo chez nous. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.